fu waay mën a nekk rek euh, ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp ñu ngi la fay fekk di la jox cër lu bëree bëri ñu leen di ñaanal euh, jàmm ju sax te di ko sàkku ci yéen ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax di ko sant di wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin gannaaw borom bi ñu mayaatee tal ak fekkee ba ñu dellu siwaat ci studio Touba TV ànd ak yéen ci seen émission bi di Subaka mbekk ak bànneex la ñu am di leen ko présenté ñuy bàyyi xel bu baax a baax ñi nekk ci lalu hôpitaux yi yal na yàlla fëgg seen bopp bu baax a baax a baax a baax ñi caabi féete gannaaw également ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax yal na leen yàlla jox liberté bakkan bu ñoom dund nag dina ñam dee yàlla na yéex waaye ñu ñu jiitu yal na leen yàlla xaare si àjjana yi nga xamante ne mooy àjjana yi gën a kawe di àjjanay fiir euh, daws ñu santat borom bi bu baax baax non lay nuyoo nak euh, ñi nga xamantene mom moy les sénégalais de la diaspora ñu ngi leen di ziar bu baax di leen euh, bayyi xel également di nuyu équipe technique bi nga xamantene mom mo nek ci gannaaw ko ci melni ni Mañaan nga xam mom tay mom yaram bi dafa tang lool lool lool lool lool macha donc yaram bee tang on comprend donc xamna nak na waxamul lan mo xew daal way tay yaram dafa tang sama sama sama dom ji sama rak ji hein alors euh, di nuit, tam également ki nga xamantene mom moy mooy euh, le cadre de Soubaka muy euh, Massayar Thiam le gendarme comme ni koy wowe nuyu namit Khadija ak Bassiro également Atoumane Gueye duñ la fàtte ben yoon sama càmmiñ ñu lay ziar bu wéré wéré alors di nuyu Famanta Baye Jaambur di nuyu bu baax euh, Moussa Niang di ziar bu baax baax euh, sargal di jox également li nga xamantene mom moy mooy euh, wayam ci émission bi di Subaka Waye tam di nuyu nak Abdoulaye Famanta bu baax a baax di ko ziar l'homme politique comme nima koy wowe. nuyu tamit invité bi nga xamantene tay ni la Famanta dalal ci rubrique politique muy Lamine Fofana le plus jeune candidat à l'élection municipale du 23 janvier

Euh, sama seex euh, euh, Abdoulaye Famanta di nuyu état également les jeunes candidats comme ni ngeen ko waxee day ñaanal ko yàlla na ko yàlla defal ko ndam. Ah. amiin amiin amiin amiin nekk le le plus jeune maire. amiin amiin amiin yàlla defal ko itam gestion bu mucc ayib. amiin ba nga xamante ni dinañ mën a wax ni kat jeunes yi ku leen confier ah dinañ la mën a defal li nga xamante ni mooy résultat. alors donc yàlla na ko yàlla nangu. et di ziar bu baax jëwriñ Mbacke yu fay di ko ziar bu baax ziar euh, itam le père Cheikh Samba directeur télévision bi directeur de programme Djibril Ndaw euh, Mbacke Mbodj responsable de la production Pape Cheikh Bey ci cadre cadrage bi. Massaer de gendarme de la maison Bassirou nos stagiaires également Akhadija Khadijatou Diouf soxna Ndeye Ndiaye ni koy nuyu bu baax ma ñaan du côté de la régie et tout le personnel ñu ngi leen nuyu leen mhm. merci beaucoup Moussa Niang sant ngërëm ñel na la Abdoulaye Famanta maa ngi lay nuyu bu baax baax te nga un plaisir hein euh, di di jàkkaarloo encore une fois plaisir encore di jàkkaarloo sama Euh, Moussa mais aussi plaisir de jàkkaarloog ñi nga xamante téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Touba TV Nous sommes comme toujours euh, di sur ce plateau Nous sommes ne le plateau Soubaka mais red chef de la xamal à tout moment il faut ma je <laughs> <laughs> sa doom day kër crédit la li ma li ma li ma ragal mooy ñu dëggate ko. <laughs> non dama seetaan ngay dëggate ko dañ koy dëggate non man sama caamiñ moom loolu dama ko seetaan. <laughs> non eh na def rek. kon que léegi c'est un nee na. oui ma. Sénégal nag ku fi ne il faut nga jël sa yoonu bopp. yow da sa yoonu bopp Arfan ah, dafa jël yoonu boppam. man man jëlaguma sama yoonu bopp. <laughs> yow rek <laughs> ba nga jëlee sa yoonu bopp yàgg na. yaa si dina ma dina ma àtteeg yow. maa ngi ci biir ba léegi réew mi yëpp xam na ne da jël sa yoonu bopp. ah waaw waaw ah, dinaa ci ñëwaat. Eh, Yacine moom sama sœur la bu ma booleeg moom donc sama sœur la bu ma. Yacine est-ce que du ma ma ne Famanta daa jël yoonu boppam. ah ah comme que maa libéré rek garaaw <laughs> indépendance la da ngeen ma ko ah Moussa kon bàyyi leen ma jël ko amul ben problème non non jël ko nak jël ko dañ lay dañ lay togn sax mais mais noonu la xam nga réew mi fu mu toll wax deug yalla tout en mhm. étant jeune nak parfois il faut ngay jël ce ce ce yoonu bop tamit c'est très important ndax xalé sax sou sou sou magué euh, parfois ba commencer raam ak yooyu bu commencé dox dañ koy bàyyi mi dox nak di jéem ak yooyu noonu yaa am xam donc mhm. loolu munu see euh, alors euh, le temps waouh, installé confortablement machallah très bien habillé la belle Yacine. madame madame ah. <laughs> direct. dégg télé bi combat baa ngi. jeex na fashion joxal ma micro bi fashion. bisimilah. nee nañ la auzu billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim. soxna maa ngi lay nuyu di la ziar di la sargal. Euh, di jiite si euh, di ko ñaanal gudd fan weer ak weer di ñaan rek li mu naan ngir liggéeyal maamam ju tedd ji Serigne Touba Khadim Rasoul. yàlla kàttanal ko ba mu àggali ak sago àggali ak alhamdulilahi rabbil alamin nan lañu ñuy nuyoo kilifa diine ak yu aada yi ne ci réew mi fooy mën a nekk rek ñu la fay fekk bu baax waaye di nuyu El Hadj yu fay Euh, duñu guddal nag ndax comme damaa ñëw fekk waxtu wi xooj ma. Mhm. dama nekk en retard di jéggalu bu baax a baax. embouteillage embouteillage xam nga rek moo ko waral comme ni ñu koy waxee <laughs> fan yi ci suñu thème sax nag Moussa maa ngi lay nuyu di la ziar. di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax di jox sa wàccuwaay politique. ma seet gi baax na waaye maa ngi gis cat yi fu ne mu fay. fële non non mais c'est très ah, joli et puis ça te va bien naa ko rek en comme mooy suñu gendarme te dugg naa rek mu ël ma ni ma dangaa tardé demal toog Euh, Aram Diagne Ndoye pay xam nga yow da baax te bëgg sa rakk ji waaye xam nga ni kenn du la dab ci jongoma <laughs> kenn du la dab ci ma madame Paye Jaraaf <laughs> ah, ah, ah. Euh, di wax rek tam du ma ko faale ndax bu naan ma ma madame Thiam série Massayer ndaw couple bu mën a geer <laughs> dañuy xëy di raag ba tëdd jot ñu dem tëdd suñu doom moo ñu aar kon Massar buñ nekk monsieur madame bàyyi rek ñu nekk cousin mm, on ne sait jamais dans bi nag wóorul daal bi lëkkale askan wi dalal ak jàmm merci beaucoup en tout cas li nga sol rafet na trop Yacine bii da dama ciy wutal moom bii dama la ciy wutal xam nga yaay sama mag waaw xam naa dangaa bëgg lu mm, baax bi ëpp la ko jox tamit ah, bi est duma xaw cëkk yooyu xam nga dama xaw waaw xam nga nag man dama tung na lool te ndaw eh, taay bi ndaw nga merci beaucoup ok d'accord merci beaucoup Yacine merci Famanta merci Moussa ñu bàyyi nak le plus jeune candidat man nag damay bëgg bo dalalé ndaw yi jeune ni. da gisoo dama and ak activité tay sax parce que damay bëgg di giss jeunesse bi ñuy ñuy yëngu alors ñu bàyyi monsieur Fofana mu mu mu nuyoo. macha li nga wax tamit dëgg la fait parce que jeunesse mooy avenir. Mhm. jeunesse la nit ñi nara. a présenter. Mhm. wala gën encourager. Mhm. dëgg la ndaxte ñoom ñooy avenir dëkk bi. dëgg la maa ngi ziar waa Touba TV. maa ngi tudd Lamine Fofana. ziar mhm. plateau bi en tout cas content na bu ñëw gis plateau bi. rafet ni jërëjëf. nuyu mon frère. Euh, Sawanda. c'est un ami un frère franchement. nuyu ñi ma fekkee. sama mbokk yi. fay nañ la bu baax a baax et donc actuellement question on est là pour apprendre. d'accord d'accord d'accord merci beaucoup monsieur Fofana monsieur Fofana tu da nga ndékkiigul ah wala yow da nga bok ci

sa appréciation très rapidement parce que am rubrique environnement te war nañ ñëw ci suñu invité également. c'est important c'est mhm. important merci beaucoup. Mhm. Aram euh, ngeen souligner ben thème boo xamante ne thème d' actualité la. Mhm. thème boo xamante ne euh, tey jii ci suba rek. balaa maa rallier fi nga xamante ne mooy sunu bërëbu liggéeykaay bi. gis nañ ni que ni euh, embouteillage bi c'est est catastrophique. metti na loolu surtout ñun nga xamante ne ñun ñooy quitter la banlieue pour mun a rallier fi nga xamante ne moom moo di Castor beeg alors embouteillage boo ko gisee euh, day am ay facteurs yoo xamante ne ñoom ñoo koy waral benn bi Sénégal dafa nekk actuellement surtout Dakar dans une euh, dans une phase de construction surtout de de de de de, de route boo xoolee am na loo xamante ne gaa yaa ngi koy tabax moo di TER bi am loo xamante ne gaa yaa ngi koy tabax moo di BRT bi nga gis ni que ni bu ñuy tabax la plupart dañuy toj yàq zone yoo xamante ne peut-être amoon ay aménagement ñu déménager ko pour que ñu mën a indi leneen alors am na tamit ay autopont yoo xamante ne à chaque fois ñu ngi koy gis comme bu ci mel ni bu cité Lobatt amaan na beneen travaux boo beneen travail boo xamante ne entamé waat nañ ko boo xamante ne moom moo nekk ci rond-point yi euh, euh, bi mhm. tu vois yooyu yëpp day nekk ay travaux yoo xamante forcément day créer embouteillage forcément day créer embouteillage mhm. mais lu ñaan yalla mom moy mu gaaw paré mhm. parce que bu paré peut-être mën na doon solution mhm. euh, pour embouteillage mais alors embouteillage tamit un ko auto yu bari da kay def parce que Dakar bari na auto lu ci ëpp mom modi auto yu ndaw yi ñoo ëpp Dakar euh, bo xolé ñun xamuñu wala tàmmuñu di gis li nga xamantene mom modi les trans les transports

li ci melni comme genre terre bi. Mhm. moom la ñuy woowee ay transport de masse. Mhm. dina mën jël à peu près 1000 personnes. Mhm. légui 1000 personnes bobu noonu boo bëggone di xeyma ci ay auto yi ndaw ndaw. dina nek lo xamante lu am solo la ci walu dembe dik bi. ci askan wi. tu vois ba tax na nag euh, li nga xamante mom moom moo transport de masse bo xolé dëkk yi nga xamante euh tay jii nii ñu ngi lutter contre les embouteillages surtout dans les grandes villes ñom loolu la ñuy utiliser. Mm-hmm. mais nag question d'embouteillage moom ah. man je me dire que c'est pas seulement au Sénégal. Mm-hmm. c'est partout c'est partout dans le monde. mais c'est beaucoup peut-être plus organisé dans certains pays. par rapport à. waaw c'est c'est organisé bo boo mel ni boo demee ba fu mel ni exemple Nigeria, Lagos. Mm-hmm. nga xamante ne moom moo di capitale bi. Lagos foofu da ngay gis ni que ni. Euh, embouteillage bi am na yenn oto yoo xamante ne ñooy daw tey. am yu daw suba am yu daw gannaaw suba c'est organisé nga dem euh, foo xamante ni moom moo di yeneen zone yi euh, comme exemple boo demee lu ci mel ni ay New York ak yooyu noonu foofu moom moo ëpp embouteillage je me dis hmm. euh, ci mhm. mais organiser nañ ko à tel point que léegi sax da ngay gis ni que ni dafa am ay hélico mhm. taxi mhm. taxi hélico pour rek di permettre nit ñi ñu mën a vaquer seen i occupation mhm. léegi li ko taxi yooyu noonu tamit day faciliter li nga xamante ne moom moo di dem beek dikk bi dëgg mais aussi dafa am lu am solo loo xamante ne loolu pour man projet boobu noonu buñ ko réaliser woon mënoon mhm. na régler benn partie ci embouteillage bi te Ablaye Wade daf ko xalaatoon mhm. mooy taxi maritime yi mm. c'était important parce que tamit taxi maritime yi da doon waroon a jógee ay Tëngéej dem directement Dakar. Mhm, mhm. am nañ ndox mi. Mhm. am nañ C'est gi. important Ablaye Wade de na ko parce que lui c'était un visionnaire Bo xolé même appayage bi fi ni autoroute appayage bi ñuy njëkk a am. bam kay koy di di def sénégalais yu bari meroon nañ ci. ñi ci bari doon nañ kaas. waye tay gis nañ jariñam deug la c'est que lool mom moy un visionnaire un visionnaire mom moy tu travailles et tu projettes dans le long terme. même tay ji nii. affaire embouteillage yi nii pour l'instant ñu bëri dinañu mer parce que da ngay bëgg vaquer say yenn occupation yoo xamante ne dar mhm. day tardé mhm. mais on pense que ni réew bu wara développer mhm. wala réew bo xamantene comme niñ ko bëggé ci walum émergence infrastructure daf ci bok infrastructure mënu ci ñaq ay tali yu bax da ci bok tali yu doy da cee bokk. Mhm. dem beeg dëkk bi. Mhm. dafa nekk loo xamante ni day contribuer carrément ci économie réew. Mhm. kon yooyu noonu il faut que nit ñi di ci bàyyi xel ne que ni nag dafa amoon ay jamono. dakaar wala Sénégal. tollul woon nii. léegi nag dafa commencé toll dafa toll nii parce que boo xoolee. Euh, ci ci ci ci ci ci ci ci chiffres yi nga xamante ne ANSD wax nañ ko seen rapport bi Sénégal léegi nous sommes. Euh, 17 millions d'habitants. C'est mhm. seen dernière qui bi nii. Euh, euh, nu mu tuddati seen dernier. Euh, statistiques yi ñu statistiques yi ñu mhm. D'ici 2040 d'ici 2040. nous serons inshallah bon <laughs> xam nga gars yi 30 <laughs> millions d'habitants. tu vois. Uh-huh. léegi 30 millions d'habitants, uh-huh. Uh-huh. il faut que nous liggéeyal. Mhm.

Mhm. mettre notre trop ci ñun. Mhm. waaye li ñuy ñaan yalla moom moy mu gaaw paré mu gaaw pare mm, d' ñu lay jaajëfal bu baax a baax donc euh, Abdoulaye Famanta et je pense que yow ak euh, Moussa sax mel ni da ngeen partager euh, même même même avis bi donc ñu lay jaajëfal bu baax a baax mañaan ñu dem régie après ñu ñëwaat ci plateau bi ñu and ak Moussa Niang ci rubrique environnement.

bisub setal yi bisub setal bi nga xam ne président Macky Sall eh, initié na ko te mu tàmbale woon ko gannaaw ga Covid bi. corona bi dugg clinique day boobu gannaaw Covid bi jaar fii ba ñu bàyyi ko eh, yëkkatiwaat na ko te ñu gis ni ca Padois la ko tàmbale eh, jot nañu fa jël image ak ay itam li nga xam xamante ni moom la fa président Macky lu wax. nous déclouons, dès le Inch'Allah de cette journée Bessoub Setal je l'avais lancé entre-temps nous avons eu la pandémie de Covid-19 qui nous a empêchés de poursuivre il est donc heureux que cette journée mensuelle puisse reprendre partout dans le territoire national, dans les établissements scolaires et universitaires, dans les services de l'administration, des collectivités territoriales, mais également dans les communes et autres collectivités territoriales. Cette journée doit être une journée de tous et de toutes. La propreté et l'hygiène, c'est l'affaire de tous l'État va mobiliser des ressources conséquentes pour accompagner les collectivités. Mais le travail, fondamentalement, sera le travail des populations, des citoyens, des élèves, des étudiants, mais surtout des élus. Je voudrais donc remercier M. le maire Bande Diop et toute son équipe municipale, remercier le responsable politique de la Padoie ici présents et les citoyens qui se sont mobilisés en cette journée pour d'abord désenclaver et surtout, j'allais dire, désencombrer les environs du stade Léopold Sédar Senghor. Il nous faut, Monsieur le ministre Abdoulaye Sow, continuer ce travail de désencombrement il n'est pas acceptable que Dakar continue à présenter un tel visage. Il faut absolument tout enlever, tout ce qui constitue un obstacle sur la voie publique. Je vous en donne tous les pouvoirs et vous avez mon soutien entier et total. Utilisez les moyens de l'UCG, utilisez les moyens des forces publiques utiliser tous les moyens pour dégager la voie publique, la rendre respiratoire. Et j'invite nos compatriotes à planter des arbres, à les entretenir, à les arroser pour que notre cadre de vie soit un cadre viable, un cadre où il fait bon vivre. Et c'est à l'image de ce magnifique lycée Sergent Malamine qui est un lycée boisé. On voit ces arbres. C'est rare dans les établissements. Donc bravo à Madame le Proviseur, bravo aux enseignants et aux élèves qui prennent soin de leur établissement. Et je lance cet appel à l'ensemble des élèves, à l'ensemble des proviseurs et à l'ensemble surtout des enseignants, pour que les établissements scolaires et universitaires soient des modèles de propreté, des modèles de cadre de vie. Et bien sûr, vous avez été pressé, Je ne peux finir mon propos sans rendre un hommage bien particulier et d'abord au ministre Abdoulaye Sow, mais également au directeur général de l'UCG, Monsieur Mastiam, Mastiam qui a révolutionné la perception de la gestion des ordures. Aujourd'hui, on sait que l'UCG est un outil essentiel, fondamental pour le cadre de vie au Sénégal. Merci Mastiam et merci également, merci également au Promogène, à son directeur général,

ni mu ko waxee ci école yi. wax ko ci université yi bépp bërëb boo xam ne bërëbu ñuy jàng la. ñu fexe ba foofu aussi. cet ba cet ba dugg fa. te euh, Saint-Jean-Malamine ni mu ko expliquer ni lycée la boo xam ni fépp daanaka ay garab ngay gis man yàgg naa ko wax ma ni fexe leen ba école yi ñu fay jëmbat garab. dana am ker mais itam dafay tax. école bi naay. Mhm. ndax ñu ñëpp xam nañ ni garab. Mhm, la muy jariñ doomu aadama dundal nit. voilà mais itam fexe ba ndakaaru comme ni mu ko waxee ni ko président Macky Sall waxee ndakaaru sopp ñu soppi xar kanamam ci wàllu parce que embouteillage bi mu wax mais bokk na ci li ko gën a indi moo di yoon yi nga xam ni yëpp dañ ko jël di fa jaay. Mhm. on n'a rien contre ñiy jaay. mais su fekkee ni euh, fu waay neex ci yoon nga laal fa jaay fa di fa jaay ah bu yàggee itam ñi war a dox bu ñu am yoon wu ñu jaar te yooyu itam ya muy indi ci tali yi nañu mujj jaar te accident mën na ko indi. Mhm. kon je crois que su fekkee nañoo jóg pour organiser réew mi ñu gis ni wàllu propreté hygiène wàllu cet dafa war a mën a dugg ci biir kër yi nu mu nekkee ci biir kër yi dugg ci biir quartier yi dugg ci biir école yi. dugg ci biir ta ci ci ci ci ci yoon mi ci tali yi ci fépp alors loolu dana tax euh, réew mi am benn mandarga ci wàllu wér parce que dana tax nit ñi wér mhm. li mu wax ci itam ci wàllu UCG yàgg nañ leen fi teg ba tàyyi def naa ci ay mhm. reportage ak ñoom ba tàyyi ci ay ay yoon yoon yoon mais effectivement c'est ça Mass Thiam dafa ñëw euh, rénover révoluer li nga xamante ni euh, révolutionner li nga xamante ni moom moo di gestion

mu set université mu set fépp set mbedd mi set alors loolu su amee dañ doon mel ni comme Rwanda. Mhm. mos naa fi def ki ma wane Rwanda man Rwanda ne mu nekkee dëkk boo xam ni àdduna bi yëpp ñi ngi koy xool ci wàllu cetam loolu ñun mhm. war nañ ko mën a am. Mhm. te je crois que daal am nañ ci yaakaar rubrique environnement bi li moo tax a jóg. yi ñuy wax lépp lépp lépp lépp lépp du lu ñuy wax di wax waxantu dañuy jàpp jàpp nañ ni lii ñuy wax buñ ci ju jëmee réew mi. dana nekk réew mu gën a fës. Mhm. nit ñi itam doomu aadama yi dinañu wér. Mhm. kon vraiment di gërëm di sant bu baax le président Macky ci li nga xamante ni jot na ko teg muy euh, parce que itam dañu am lu bari lu ñuy xaar ci ñoom autorités yi du politique mais dafa lu ñu xaar ci ñoom loo xam ni euh, suñu posé acte rek ñu xam ni ci ñoom la war a commencer alors donc loolu dana doon loo xam ni signal fort la. bu ñu yónnee ci askan bi léegi nag léegi nag dañu war a suivre comme ni mu ko waxee woo élus locaux yi maire yi. Mhm. jeune voilà on a jeune maire. Mhm. fa mu nara nekk ëllëg maire danaam am programme boo xam dafa war a mën a yaatu ci wàllu cet. Mhm. ci wàllu assainissement kon nag je crois que itam élus yi. sen seen wareef la ñu taxaw ci lolu kon ret loolu laa doon indi ci rubrique bi euh amna amna na euh, ba beneen yoon incha allah solo torop euh, Moussa Niang ma bëggoon ci interpeller euh, Lamine Fofana ci discours président Macky Sall parce que li c'est pas la première fois mu def ko donc je pense que Sénégal bari na yu melni ñu yëkëti yo xamantene du am ben suivi c'est-à-dire que au début mën nañ ko wax mais du am ben suivi donc tay ki si je prends l'exemple ci li nga xamantene mom mo moo jëmoon ci sachet plastique ak yi juste pour donner un exemple mais du am suivi parce que tay wax nañ ne peut-être ak li nga xamante moy Covid bi mom mo ñëw vraiment euh, yaako ko mais pour à ce que mu nek lo xamante da fay sax parce que ñun dañu sonn ci dégg lo xamante à chaque fois fay rafet ci déggine mais du am suivi ñun tam dañ ci lotte askan bi dañ ci lott yeen say lolu mën na wax ne sax Macky Sall en personne non la mel je pense que lu mu fiy indi musul gudd fan je ne sais pas lan moy problème bi mais aussi ba pare population mo amatul confiance digent population ak gouvernement bi. Mhm. parce que on leur avait confié notre confiance et ils ont trahi une fois donc du coup moo dem na sa Macky Sall lu mu mës a rek Sénégalais dañuy dañ koy sétane rek bayiko duñ ko nangu duñ ko nangu appliquer. duñ ko wóolootul wala. wóolootuñu ko en fait lolou lay problème actuellement mo nek ci biir Sénégal. Mhm. yo bo xolé lu mu fi mës a teg duñ duñ ko top duñ askan wee ko dul topp. ah waaw askan wi moo ko dul topp. ah kon ke li bu ko tegee ne askan wi jàppale leen ma ci askan wi buñ ko toppul kay foot bi ci askan wi la parce que moom bu tegee kay askan wi comme ni ko Moussa waxee ñoo ko wax accompagner. mais le problème am na que Sénégal foo dugg rek dafa dafa am benn euh, inégalité boo xam dañ ko fay jaay quoi mooy amaana ils ont toujours leur choix déjà lu ñu mënta indi rek dañoo am seen soit. Je j'ai pas compris comme comme. amaana moo mm. ñoom bu ñu tegee projet. Mm. ils ont déjà ciblé Personne yi nga xam ne dañ leen nar a dañ leen dañ ci dañ ci nar a jàpp. dañuy wax ci kaw rek mais luñ nar a def déjà teg nañ ko yéen bo leen bo leen topé ci projet yooyu ya ci réer par la suite mais du am ben succès. Mm. par exemple projet boo leen laajte ñu ne def nañ ci ay milliards. mais buñ ñu def nañ ci ay milliards ces milliards day 5 personnes yi ñoo koy diriger lekk ko lu mu leen neexee. Hmm. ñun ñi leen di topp ci loolu loolu lañ xam ci doxalinam quoi moo tax franchement ay projet am sawaruñu ci. <laughs> d'accord voilà mais ret soo ma ko mayee. Mm-hmm. en fait euh, euh, rubrique environnement bi. Mm-hmm. man bëgguma sax ñu koy politiser. Mm-hmm. parce que euh, ce n'est pas la la personne. je crois que qui est importante mais je crois que li am solo le ëpp solo moy walu hygiène wax. Mhm. ak propreté. Mhm. affaire kenn ku nekk la. Mhm. personne. affaire kenn ku nekk la. kenn warul xaar président Macky Sall di la di sa kër ko balel ku nekk ya wara balel balé sa buntu man et que je crois que itam. Euh, il faut ñu comprendre que ni walu politique. si mhm. si effectivement. ñaata yoon laa fi mos toog naan nañuy raxas loxo yi ba mu set. Mhm. ba yow sax nga naan ma ah boobu corona bi ñëwagul. Mhm. ba bi corona bi ñëwee bokk na ci li gën a tax ñu ne nit ñi nañ ko moytu mooy nañuy raxas loxo yi ba mu set. mais soo xoolee loolu aussi dem na dem a dem nañu ba tàmbale nañ ko bàyyi ñu ngi koy tàmm commencé di bàyyi. te pourtant kon je crois que yaatu dinañ ci wax lu bëri bëri bëri. dinañu indi ah parce que comme pàcc la. dinañu indi yu bëri bëri bëri. pour wax ni. maanaam du affaire politique. Mhm. nañ li mbir mi. dafa dafa jaadu. président président ci boppam dafa jaadu. Mhm. dafa jaadu sax mu wàcc génn pale mhm. ñëw bale. su ko defee bale boobu mu bale. nit ñi xam ni kat. lii kenn ku nekk la war ci sa biir kër. képp koo xam ni mair nga itam maire ci gox. loolu daf la war. da war a génn di setal marché yi ñu koy setal. di setal quartier yi. as ASC yaa ngi ci biir quartier yi ñu mobiliser wu di setal quartier yi. di seetal euh, kër yi di mhm. seetal fépp ñëpp buñ ci taxawee mhm. alors ñëpp ay wér mhm. mais bu fekkee ne dañ ko jël mbir mi ne affaire politique la kese yëf Macky la waaye xoolal yëf yi kon feebar bu duggee ci ci réew mi kenn du ci mucc wasalaam <laughs> d'accord Yacine am loo balaa ñuy dem euh, politique effectivement damay appuyer rek ci li Moussa wax ndax euh, Fofana neexul ba neexul set moom président Macky Sall bu ñu ci fekk see amaana dafa def devoiram rek en tant que jullit waaye suñu boroom moo njëkk a sant euh, di euh, doomu aadama yi ñun ñu set ci seen bopp ndax booy seet rek corona bi maa ngi ko fi doon wax aram ma ni mesure de barrière yu ñu jël lépp loo xam ne rek aaye nañ ñu ko yàlla moo ñu ko njëkk a aaya waaye ñu ñoo dëgër bopp ndax euh, raxasu ci set la bokk te set dañuy wax ni moo ànd ak jaamu yàlla mooy tax nit ki mën a jaamu yàlla. Mm-hmm. tey euh, accolade bi nga xam ne ñu ngi ko doon bañ sax diggante nit ak boroomam euh, ndax euh, ci mesure barrière yi la bokkoon tey diine moo njëkk a bañ jigéen ak góor sax di accolante buñ dul jëkkër ak jabar. Mm-hmm. yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey boo xoolee ci lislaam indi li indi suñu borom indi woon na ko ba pare. d'accord dëgg la de. te bu ñu ci toppoon amaana lii lépp du am mais doomu aadama moo dëgër bopp ba nga xam ne tey li may doon wax chaque jour de période corona suñu borom moo ñu njëkk a tere ñu bañ tey corona ñëw na tere ñu par force ndax ku ci nekk dee nga ragal. Mhm. mais nag set bi moom du question de Macky Sall wala Moussa lamin Lamine na nii Famanta. ku mhm. ci nekk tey sa kër boo fa nekkee euh, na même bu nekkee góor nga étant célibataire sax boo xëyee bale sa néeg boo te boo génnee dinga ko toon ne dem yóbbu ca poubelle ba bu ku nekk defee noonu ëtt bi day set ah bu ci nekk defee noonu ëtt bi day set ëtt bi <laughs> si ëtt bi day set da ngeen da tooñ Fofana de Fofana yéen la <laughs> non bu fekkee dafa tooñ Fofana <laughs> waaw parce que da ngeen bëgg li mu wax xalaatam on la respecte si non non eh arab arab ko exemple la tey famanta mii xam nga ni moom bu toogee lekk ba pare bu paree day ramasser lépp dem yóbbu bu ku ci nekk defee noonu fi nga toog day set te set nag ci nit ki yow ya koy commencer ci sa bop ci sa ci sa ci sa personne wacc ci sa nek génn ci ëtt génn ci mbedd ainsi de suite te limu sax dafa am am solo mhm. parce que tay maire yi nga xamni ño nek ci commune yi gox yee goxani tay amna lo xamni buñu ko defee rek politique dafa jup ci dañu soxla nit ñi mhm. tay association yi ASC ñom ñoy xey yeen yenn saay sax di organiser ben journée set setal bo xamni dañ naan euh, suñu secteur dañ ko ah dañ ko mais bu xoola si si te buñ ci dugalee maire amaana dañ koo pare ne wala ñu ne ko journée bi bu ko defee mu ñëw mais amul benn maire boo xam ne booy booy seet boo nee benn doo ni ñaar boo xam ne dina koy orga bariwul

dafa am politique lu ñu soxla ci doomu adamay mais non je veux dire que ni set bi buñ leen ci xaar wa mais mais la politique même ren non non mais attends non waa xoolal la politique xoolal la la la politique même de gestion des ordures des déchets ñëpp nangu nañ ñi non ret ñep nangu nañ ñi l'UCG li président non, non, Moussa au delà may ma au-delà dafa la politique politique de environnement bu ñuy déroulé boo xamante c'est le gouvernement qui le déroule donc am na point bo xamantene c'est important en tant que politique de réfléchir Non, mais c'est ça. si non moo tax li mu wax. non yow ba nga dé, au respect il ne faut pas politiser votre euh, rubrique. Là, on est d'accord. mais la pensée de la personne. Mhm. par rapport mhm. à la gestion mhm. publique. c'est vrai Sénégal. Euh, Macky Sall bam fi toogee ak légui ni kagn la doora a ay clinique day et que et que oh, yow euh, kii num mu tuddati mu Famanta hein? discours bi environnement bi bu fekkone kenen moko kenen moko wax ni discours bi ni peut-être que mom peut-être du réa du du du du du analyser nu analyser mais président Macky Sall mom moko wax lolou mom mom c'est un homme politique c'est un homme politique il réagit en tant que politique c'est ça Moi, je suis d'accord hein, de sa réaction on va à la régie et on revient sur le plateau <laughs> Mañaan c'est bon nous dem régénérer

commune de Oudoukar fan la nek exact commune Oudoukar mu ci région de le département de Sédhiou euh, mën naa wax ni ci deug Pakaw la parce que euh, c'est c'est de 49 km de Seydou et 37 km de Kolda mhm. euh, commune la bu nga xamanteni machallah politiquement civilisé na trop ci politique parce que en fait suñu mam Abdoulaye Wade fofu la yayam jóge muy tout Dabo Ok. Ah. ah, c'est une information qu'on vient d'avoir donc c'est important. alors euh, euh, commune boobu noonu tey jii nii xam nga tey jii dafa ci communes yi nga xamante ne nekk ci Sénégal alors mais commune non, Tu ci suñuy information ça manque de tout hein. franchement parler parce que en fait euh, boobu ba léegi ñu ngi fa rek benn maire moo fa nekk bu nga xamante ni dafa bañ jóge ci commune depuis Macky depuis Abdoulaye Wade mi ngi fa.

monsieur Sanko Sagnan PDS la nekk moom moo ma formé ça ndeysaan ça parce que PDS laa nek côté tey ba mu tegaat troisième mandat bu nga xamante ne dafa bëgg doon maire alors que y a des jeunes derrière lui nga xamante ni am nañ capacité def ko. Mhm. donc mu bañ aal euh, ñu ñu toog wala aal ñu présenté wu. nga gis kenen ki nga xamante ni jox nañ occasion franchement parce que aussi non

mais il du y a des mères qui sont là yo qui en fait nous nous nous, nous, nous, nous nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, parce que nous nous commune commune mhm. donc nous, nous, ko a def mhm. je sais pas ah, étant jeune nous nous, nous, projet buñ ko nous, mënoo teg sa nga def deux mandats yaa ngi ciy laaj troisième mandat mënoo teg programme mënuma ànd ak yow ça veut dire que dama trahir sama population et le problème am nekk équité territoriale ci ci euh, ci dëkk boobu noonu. Mm-hmm. en tout cas y' a un problème en fait. Mm-hmm. parce que boo xoolee soose yaa ngi fa pël yaa ngi fa. Mm-hmm. mais pendant tout ce temps mosoo gis benn euh, pël mu doon conseil ci conseil municipal bi lan la ñuy parce que amuñu xaw ma base la ñu amul. légitimité wala non non en fait nit ñi moo fa bëriwul en village c'est 17 villages et grand village c'est soose Poli. la grand village nous avons mën villages, wax le quatre villages euh, village Sosé, ñi ci des yëpp hmm. malgré que 17 euh, 13 villages, village pël la mën wax wala 12 euh, e mais dañoo bëri xam nga village pël rek taxaw 3 3 nègres, rek ñu tuddee ko village quoi tuddee ko village mais l'importance importance en est que ne tey ñoom ñu ngi dund ben dund ba nga xam tane metti na trop te ci conseil municipal lañ mëna waxé lolu pour mhm. maire bi ba ci xel mhm. mais buñ naan ñom duñ leen euh duñ leen laajte duñ leen outal conseil ci bu xam nga. mais lolu est ce que est ce que lolu mënul indi affaire de ethnicisme aussi lolu c'est c'est très dangereux c'est le problème qui est là tay bo démé ci poli pour waxtaan ak ñom sax c'est des problèmes. tay dem mhm. sama gars ñi ngi yon ci sur terrain parce que man dama organiser ben té débat bu nga xam tane dañuy dem toog waxtaan ak ñoom ñu teg suñu ataaya toog waxtaan ak ñoom ñu wax ñu lan mooy problème. Mhm. foofu noonu mhm. parce que man je ne vois pas que le nombre de la population mu doon problème pour jàppale population bi. population bi ñaata la. bu Oudoukar bi. waaw quatorze mille la. quatorze mille population. waaw quatorze mille la. Euh, nombre de votants yi ñaata la. nombre de votants yi mu ngi ci parce que 10 millions et quelques. 10 et alors il budget budget commune euh, budget année passée je pense que 21 millions 21 millions. Oui. budget de déroulement euh, commune 21 millions 21 millions oh. d'accord euh, que donc que programme mu

parce que mon mi en tant que en tant que jeune c'est vraiment dañ félicités. féliciter ci li nga nekk ndaw nga ne da ngay postuler pour engagement bi ak mais yow yakar nga ni que lu mu lu mu télé yow ci budget 21 millions yow mi mën nga ko mën nga ko lijjanti man c'est le problème problème bi foofu la bo xolé lu muy tax lu tax ba euh, ma déposé sama candidature bu ne bëgg a son sama son bon bopp ci commune bi cette concurrence là en fait

Cette communes ci euh, ci pakaaw la nek. Cette communes ci pakaaw la nek. mais ces politiques buñ démé comme comme euh, Sédhiou mooy chef lieu de département mhm. ces responsables politiques dañ koy choisir Sédiou mhm. légui ñun luñuy ñuy pakaw ñoñu duñ ko yóbbu ci assemblée nationale duñ ko yóbbu ci conseil des ministres mhm. te bo xolé euh, bo xolé bu baax buñ boolee population yi nombre de votants yi Sédhiou rawuñu quand même donc tey mus pakaaw bu mu commencé ba tey je vous que ni Sénégal fii nii bokk na ñu bëri ñu nga xam te ne bëgg nañu am barke dem fa uti ji ñaan parce que dégg nañu Balla Gaye di ko wax. dégg nañu ñëpp di ko wax. mais bu ñu fa amee barke boobu noonu pare nañ ci pakaaw ko en fait man maa ne jot na léegi doomi pakaaw jàpp seen. maanaam ñoom ay ñaan lu daang mu leen fay yóbbu ñoom. mais dañuy utiliser tour soosey yi sax bu dee Casamance la ñuy utiliser jeunesse Casamance. ma ñaan fait que yo defoo fa dara anam du Balla def Casamance tey malgré tous ces combats qu'il a gagné donc loolu mot tax voilà euh, attends on on reste dans dans le développement local quoi par rapport à sa commune quoi. ah xëy na peut-être léegi yéen seen <laughs> commune boobu noonu tey jii nii. Oudoukar ah. Oudoukar boobu noonu tey jii euh, ay poste de santé ngeen wala case de santé. Euh, poste de santé et case de santé ñaari poste de santé moo fa nekk. Mhm. beneen bi Oudoukar la nekk. Bene bi maa ngi ak hmm. fait même pas trois kilomètres. Hmm. alors que ngi de l'autre côté. plus hmm. de dix wala quatorze kilomètres de ça. donc cette équité territoriale ba tey mu ngi gestion euh, mairie partout. harmonie laa bëgg population ni village village.

parce que combat lañ mënee moom indi fu ma ni presque parce que en fait ça fait deux ans là où samay beaucoup étudiants charité euh, monnaie la ñun il faut ñu jóg il faut ñu jóg ci la ñu créer le mouvement pas en avant la rectification de mmh, Pakao ok donc ligue nañ ci liggéey bu am solo mané nekkoon coordinateur euh, de relations extérieures donc dama démissionné bu ma duggee ci politique parce que gars yi bu ñu yak seen tur ñu nane ay politiciens moo taxoon pour la première fois sax ay deux ministres di déplacé dem Pakaaw def ak ñun forum gis nañ taxaw nañ poto yi taxaw nañ làmp yi mais c'est trop dégâts yi ñu fa def manque de courant dégâts bu mu fa def bëri na trop. mais dans votre département vous avez le ministre de la culture. Abdoulaye Diop. Mhm. waaw moom loo ko wax ci Pakaaw la dee naan xaar leen Sédhiou am ko d'abord tax ndaxte moom mooy chef de lieu <laughs> kon man damay jóg man muy doom Pakaaw damay jóg. jàkkarloo ak moom nag Sédhiou xaar pakaaw am d'abord. yow la soose nga. soose bi dégg nga olof tey nga ne danga pakaaw mais mais mais yow yow yow. yow ah, ah, ah, yow tey jii nii xam nga tey jii nii da nga nekk ndaw yow tey jii nii très rapidement yow li ngay ka naan am ko affaire yooyu noonu yow nan ngay def pour amal ko fa. ok am na importance parce que nous ngi sant yàlla baax maa ngi gouvernance territoriale xamante ni loolu la ñuy jàngal ñun boo euh, sama commune bi dafa enclavé moo que euh, trois villages moo nekk ci tali bi ñeneen ñëpp ci biir lañ nekk enclavement boobu boo ko boo ko xoolee ci jet la lay jox moo ma tuddee sama plan bi sa plan jet. plan plan jet. Hmm. Z quoi. Z. parce que de l'autre côté dafa dugg enclavement bi yoon dafa dugg amul tey amul yoon y a plus de 12 villages d' autre côté beneen côté bi amul benn village bi neen sumbund léegi boo jëlee yoon bi defar yoon boobu noonu hmm. mu génn ci kaw tali bi RN bi hmm. continuer après mu dugaat pour poli fu ñu nekk parce que da ngay gis nit feebar guddi pour mu ñëw ci hôpital wax c'est hmm. difficile et les femmes yu jigéen ñi nekk foofu noonu lan yan activité la ñu nañu nañu nekk foofu defuñu dara franchement franchement lu dul dem ci faro yi dem liggéey luñu am jappalé ko sen doomi ñom ñoom yëgaguñu. faral toolu ceeb bi quoi. wa moy ceeb bi waaw yëgaguñu émergence bi du Sénégalais di wax. Mhm. franchement lool moy difficulté bi. té mhm. tay ci projet bobu noonu dañu bëgg yoon wi tali bu xonko sax lañ fa bëgg def. Mhm. so da ngay ñëw rek def ko ndank

ma xaar doon maire. ci nga nekkoon après ci parce que tu l'as nekk en fait dem naa sa ba rencontré ci Ageroute. Mhm. fekkee amoo sa ambition. doon maire. Mhm. Mhm. parce que population lu muy dund moo ñu yëkkati. ndeysaan dëgg la. mais est-ce que euh, une population mais adhéré nañ ci sa combat yii nii ci li mëne est-ce que ñoom tamit ils veulent que tu deviens leur leur leur maire. franchement franchement étudiant là. Et tu penses euh, euh, moom mon ne non. non <laughs> non ah, ah. attends non qu'il soit honnête kii dina ñëw ba fii naan la waa population bi nee nañ déedéet. non attends en fait su ma waxee nag population bi que nit boo amee ambition ba pare ay jafe-jafe amaana. bàyyi ma yow ñeneen parce que dañuy bëgg euh, seen commune changé. ah mën fa nekk mu doy na leen ba tey. mais en fait boo xoolee sax am naa ay ay ay candidats yi nga am na candidats yi nga xamante ni sax. Euh, nous mottali le nombre de euh, conseillers qui ont été sur la liste bi étant jeune dañ ma xeeboon sax du Ah, ah donc nous mhm. nga un manque de confiance la population am ci mm. confiance bu nous am le moo tax tey liggéey boobu moom mhm. Mhm. donc ça veut dire que la population elle est déjà adhéré ndeysaan ma ma dernière question la situation actuelle à l'université euh, bon toutes les universités du Sénégal tey jii gis nañ que liste yi Euh, euh, gars yi éliminé nañ ko léegi amatul euh, benn liste syndicalisme ci université te gars yi ñu ngi xeex ngir soutenir seen yeneen frères yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Bambey alors yow situation boobu noo koy gisee en tant que étudiant. maa ngi koy ñaawal bu baax parce que en fait depuis démb la université parce que ñu am TD seen TD yëpp annulé nañ parce que lan la le problème a nekk ba tey état Sénégal gémmawul xool. lu muy def ci euh, changement euh, élèves euh, étudiants yi lu ci université ñun UGT par exemple ñun tey gars yi mun wax ni depuis depuis l'année passée jànguñu depuis l'année passée là là on a un problème de salle amuñu salle sax am fi li nga xamante dinañ fa def cours waaw mhm. ñu ngi koy jooy ba tey keroog defoon nañu sa communication bi du coup avec ça man lu ma jaaxal mooy suñu président ci université yooyu la jaar xam na lan mooy problème université. nit n'est mieux placé que le président Macky Sall. pour xam problème université. d'accord d'accord. donc ba tey mënul fexe ba indi changement bi ci université yi. loolu problème est-ce que loolu dina yomb changement boobu. Euh, du yombul moo tax man ma ne c'est le moment gis nga politique sénégalaise ñu ngi utiliser la jeunesse. moo di de tous les camps. muy camp Macky Sall muy camp de l'opposition na jeunesse bi jël responsabilité. bëgg ñu utiliser leen. Mhm. Nous si na si jël responsabilité am am ambition jiite Sénégal de demain. Mhm. loolu rek moo mun pas-pas la rek indi waaw loolu rek moo mun régler problème mhm. mais ñi nekk ci kaw c'est les mêmes têtes de maa yoon réunion gradé ak mais c'est les mêmes têtes qui sont là depuis xaw 2010 depuis Abdou Diouf. ci ay réunion décision Sénégal bu ñu ko nar a reprendre ñoom la. léegi nag seen fi. ça va ñun lañ jóg. <laughs> mais du ay sànni xeer yi man loolu laa gis en fait. Mhm. moo taxoon sax ak euh, Fadel Barodo Y'en a ci mhm. jambi gox yi parce que mhm. là la aussi ñun euh, avenir Sénégal soxaloon nañu léegi culture panafricaine ñun ñi nga xam on serait les dirigeants de demain. d'accord. liggéey ak ces politiciens là dañuy dugal ci sen intérêt. mais ñi jëm a ñi nga xamante ne intérêt population. dundin population mo leen tax jox pour Sénégal mun a changer changer philosophie politique Mhm. loolu d'accord merci beaucoup mon frère Xamna naa Atoumane dégg na bu baax a baax li nga wax ndax te mom c'est un révolutionnaire panafricaniste euh, Atoumane dégg bu baax a baax <laughs> nga bëgg dekkilaat yow yow ay nga bëgg a non non <laughs> recherche c'est important parce que engagement jeunesse bi nii c'est important Atoumane il est très engagé euh, ces temps-ci xaw lu xew non politique boo ko dugg rek dégg naa sax moom dégg naa sax bokkoon na ci candidat yi ñu recalé yi nekkoon fële <laughs> au niveau de ñaari tali dégg naa dafa kii woon mais dañ ko recalé atu mais garaawul incha allah dina dina baax sama sama sama leader bi. ñëpp xam nañ fi mu bokk ca Sonko la bokk. Atou man dama xamul fu bokk sax. Atou. Ah. Sonko. Ah, ah, ah man dama koy wax de Atou Sonko la bokk. ndeysaan waaw ndeysaan nee na merci da koo bëgg si xol bi ndeysaan. <laughs> yàlla Fofana parce que nous nañu que vraiment euh, sur le rubrique politique bi politique, waxuma la à travers jeunesse mais gox yi nga andi rek askan wi difficulté parce que c'est pas la première fois andi nga fi ñoo ñu ngi ci ay villages wala ay dëkk Donc, donc loolu euh, Lamine donc euh, dëkk communes.

équipe technique yi nga xamante ni ñu ngi mm. ànd ak ñoom maa ngi fii toog am na ñi nga xam ne démb zéro heure lañ jóg ci ànd ji def ay meeting mm-hmm. te joxuma leen ñaari dërëm comme les autres mm-hmm. xam ngeen ni loolu franchement ku ma mm-hmm. toog rek di leen sant ko mm. <laughs> Yacine non dëgg di campagne xaalis a koy def d' accord ñun plan de change. say émission nga fi dégg nar a dekkilaat après bu ba ma ñaan dagg ma du ko mën. alors euh, non moom nee na xaalis te ñu ngi koy campagne euh, ko dinañ ci ñëwaat nekk campagne euh, xaalis a ko yor ndax na ñoo xamante ne lekkete kese moom ndoxate béy fii réew mi loolu moom tamit dëgg la gars moom xam nga yaa ma gën a xam et que tamit aussi bon ñu ngi koy encouragé encore une fois en tant que jeune waaye nag am na ku ma envoyé message léegi ni ma jeunes yi nee nañu jeunes yi politique dañuy saf weex di wax di yëngal. waaw nee Lamine dafa xawa ki euh, kii touti Lamine xam nga. <laughs> day nooya rek affaire de jaay taar nii xam nga jouer film yi nii. iti jaay eh, yaa doom day famantal doom day famantal dañoo niroo sax ñom ñaar merci beaucoup chers téléspectateurs donc on vous donne rendez-vous lundi prochain merci à tout le monde. Mañaan jërëjëf jërëjëfal na leen yéen ñi ma andalon ci plateau bi. merci beaucoup jaajëf merci. jaajëf Mañaan.